Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf politique ak wàllub yoon fës lool ci yéenekaay yi réew mi quotidien wax ci coowal escroquerie bi ñel lu toll ci genn wàllub milliard ci suñu koppar yéenekaay bi di xam ne ni ab njagamaar di mari doom la ci Ismaïla Lo boo moyul nag ñaari at la war a tëdd ci kaso ndax li mu tàkk rip ci coow loolu beneen cow ci biir yéenekaay group Rewmi network bi muy mbiram Dora Gueye yéenekaay bi di moo mujj nañ ko yóbbu prison ndax démb daal nañ koy placé mandat de dépôt l' observateur mi ciy dikkaat wax ni colonel bi ci boppam yóbbu nañ ko ca kaso ndax moom Cheikh Sarr dafa takki tamit ci li nga xamante ne moo jëm ci coowal Pape Doro Gueye mbir mi ñeel li nga xamante ne moo jëm ci wàllu escroquerie toll ci ñeenti téeméeri million ci suñu koppar nga xamante ne dañ ko def homme d'affaires bi di Zakilullah Sow bëri na ci ay opération yi nga xamante ne xel ñaaw na ci ay transaction secrète yi nga xamante ne accusation bi dafa jàpp ni ñi dañ ko doon def ci colonel Sarr bu gendarmerie Doro Gueye jamono jooje yéenekaay groupe Futur Média bi dañu xamal ni mujj na daw làkkatu ji ca France bu waaye nag boo mayul ab mandat d'arrêt international la ñuy ngàll ci ndoddam dooro gay moom li koy xaar diis na lool bu ñu sukkandeko ci l'évidence mii di kat ci li ñu teg loxo tamit kii di colonel Cheikh Sarr ndaxam daañu teg loxo Madiambal Diagne Les Échos daal mu ñuy xamal ni ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko moom njiital Pastef mujj naa yóbbu taskatu xibaar bi ci yoon Sall mi nekk tamit candidat ci élection législative yi mu mel ni teel naa jëlee matukaayam ndax bind na procureur de la république ma jàmbal daal yoon teg na ko gët bu ñu sukkandeko ci Vox Populi yéeni kaay bi di laaj ndaxam kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci coowal général Kandé ak lien yi mu jàpp ni Ousmane Sonko am na ko ak MFDC xëy na moom mooy li ko waral le quotidien bu ma jàmbal jaañ moom li mu gis mooy Ousmane Sonko dafa mel ni ab procureur bu nekk ci campagne li ko waral bokk na ci ay meeting yi nga xamante ne mu ngi koy amal fépp mu dem de liste Pastef ay révélation la ci amal jëm ci ay détournement waaye tamit di attaqué ak tuumal ay adversaire am ñi nekkoon adversaire Ousmane Sonko mabbeeku di ko wutali ci biir Pastef ci le Sud Quotidien xëy ni ki tey ji kaa bi di xam ne ni kon transhumance moom dafa mel ni day woy ci Sénégal ndax saay bu régime bu bees yegsee rek day mel ni ñi ko doon ngañ yëpp dañuy riir wutali ko ñenn ñi xëy na ay ngëneel muy privilège ñeneen ña tamit boo mayul ngir làkk seen bopp la ñi des nag bi dara moom tête de liste nee na jamono ji nag am na campagne ak campagne li mu gis moom premier ministre mooy ñi nekk ci opposition bi xam nañ ni jeexal nañu te nee na yenn ci seeni discours dafay reeloo démb ci kanamu askanu ndar moom Ousmane Sonko li mu dégle mooy projet bi daal dañu koy réussir projet bi ci boppam Ousmane Sonko li mu ci gis mooy askanum njum nangu nañ ko ba noppi kàddug tête de liste Pastef fës ci yéenekaay bi di la Soleil ci yor yor bi Ousmane Sonko di fësal li nga xamante ne moo jëm ci enjeu développement pôle Gueule ndax démb ci diwaanub Ndar Géej suñu naataango yi di nettali lan la ci premier ministre fësal ci mbëbëtam jëmale ko ci gaz bu Sénégal ci wàllu mbay mi wàllum napp ji naka noone càmm gi ak sax tourisme jamono jooje Amadou Ba moom di fësal li nga xamante ne moom mooy mbébétam ci nekkin ak dundinu doomu aadama yi ci Sénégal moom tête de liste jàmm ak njëriñ nee na mbëbëtam mooy ñëpp daal di liggéey ngir Sénégal gën a suqali boppam waaye tamit ngir mbooloo ci biir réew mi Barthélémy Dias di addu moom ci Walf Quotidien ci wàllub décentralisation organisation li nga xamante ne moom mooy mbalit bi yéeni kaay bi fësal li nga xamante ne moom mooy vision maire bu ndakaaru bi jagleel ko collectivité territoriale yi ci biir yéeni kaay groupe Walfadjri bi ba tey kàdduk Anta Babacar Ngom fës na ci lool moom borom sédiment di ŋàññ li nga xamante ne moom mooy fitna gi ñu nemmeeku ci campagne gi Thierno Alassane Sall wéy di ŋàññ ba tey loi d'amnistie bi nga xamante ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko fi samp wote ko ci L'As Quotidien njiital Sénégal kese nee na loi bi ci boppam lañ am nañu majorité ci élection législative yi législative yi ak organisation bi nga xamante ne war naa mucc ayib lool bu ñu sukkandekoo ci Dakar Times yéenekaay bi fësal coppite yi nga xamante ne Jean Baptiste di jorin ju ñu dénk karange bi réew mi daal dina koy amal niki ren ji bokk na ci carte électeur yi nga xamante ne daañu ko joxe ba fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre bi li mu fexe tamit ba boole ci organisation bi lii di coalition électorale yi teg tamit ay numéro vert ngir képp ku ci am jafe nga mën a woote agent yu poste moom ni gis nañ ci jafe-jafe ba noppi ndax la témoin yéene kay mu ngi xamal ni gannaaw bañ leen beddee ci séddale matériel électoral bi ñoom waa poste mer ba fut la ñu def ñi kay jamono ji mooy acteur culturel yi ndax enquête yéene kay mi addu ci fukk ak juróomeelu édition Dakar bi nee na daal biennale bi ren am na lu rey ndaje bi démb lañu ko door ci ndakaaru njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nga xamante ne moo ko ubbi nee na taxaw na tembe ngir fexe ba ñoŋalaat li nga xamante ne moom mooy aada ak cosaan indi ci tamit ay innovation